jàmm jooju day loo xam ne mooy am njëriñ ci diine bakkanu doomaat bakkanu doomaat boobu nga nga nga faat ko ci mu di jullit loolu sawar rek mooy mooy mooy day dem sawar rek mooy loolu man amul lenn lu mu jaar lu ko jaar loolu te mooy dëgg hmm. bu gëm yàlla gëm danga nga gëm yi nga xam a digle am na tere bakkan doomu adama bakkan doomu adama faat ko loolu sawar rek day dem sawar rek ñu di loolu ko jaar adduna ngi ci biir jëru loolu yéen da ngeen bëgg adduna ngeen bëgg di ko defar bëgg bëgg lu defar adduna waaye bala moo sotti ak koo mën a doon ak koo mën a dégg moom jaar ko doy la ci la ci am njëriñ rek mooy am seen digg hmm. waaw ngeen seetee nag ba benn bëkkanu jullit faat ko day dem safara mooy mooy mooy mooy mooy bayam yéen tas nation bi da leen a jaral ñàkk seen bëkkan waaye tegu leen daal tegu leen bu jàll li ma lay wax lu lu ci man la lu am métti ci man la lu ma yéenee lu ma lu métti ci man ci yi nga xam ne ñooy njiiti adduna yi lu waxuma waxuma yow ak njiit na adduna yëpp laa wax buur góor lu tëye góoram maanaam politicien lu ko may baat rek la bëgg mm-hmm. góor itam lu tëye ngóoram rek la bëgg mm-hmm. waaye tegulee da ngeen koy sàmmi nag delluwul ko ci yàlla da ngeen koy sàmm ci seen bëgg bopp rek mm-hmm. day day lu sori loo xam ne doomu aadama yëpp ko bokk waaw lépp ñu ngi tënku seen diggante sa borom loolu mën a def rek la yàlla rek ak loolu la ci yàlla defal defal loolu la ci may may may may may may daanaka du mujj fenn ndax ndax loolu ndax ndax ndax da ngay seet da ngay seet da ngay seet ci kilifa adduna nga xam ne kilifa adduna dong la moom rek lay wut moom rek lay wut li mu li li ñu àttan ci faat bakkan ak faat bakkan yi ni mu leen yomb de te ñooñu te te te ñu faat leen ay ay jullit a ngi ji ay ay mbooloo mbooloo jullit loolu nga seetlu benn ak benn bakkan rek bu bu jullit day dem safara yi moom loolu ak danga ñoom yëru ko waaw loolu dañuy waxtaan rek lay biré la waaw diine dañuy wax ne diine nasiha diine lay biré rek la lay biré lii mën a wax kàddu yi mën a wax ndax yii li nga wax lépp fatuwaa rek la xam naa ko dégg naa ko lu wax lu wax rek waaye damaa naa bëgg gën gën di ñaan yàlla gindi gindi ci kaw ci boppam ba la ñuy def ñu jóg ci seet loolu mooy tax lu ci njëriñ lu ci génnati rek moo tax mu am njëriñ moo lew moo tax moo tax ñu am jàmm moo tax itam ñu maye jàmm dëgg la dëgg la lu diis la li ma leen wax waaye nañ ko bàyyi xel. déet ko bàyyi xel lii rek lañ doon aussi. yaa ngi am yaakaar si yow ci kaw moo moo moo tax ma koy wax. lii rek lañ doon aussi lii rek lañ doon aussi ñëw ñëw ñëwoon pour rek lu neex waaye dañoo ñëwoon jël nañ te dinañ ci bàyyi xel Mbacke dinañ ci bàyyi xel bu baax a Mbacke dinañ ci jàpp dinañ ci bàyyi xel. waaw yónni woo leen ngir kii wala. wala yónni ngir nationalisé nationalisé xam naa ko jaar naa fi bëgg sa réew bu baax na ko sa réew jaaral la sama kenn jaar jaar jaar waaye nag réew a ngi ci yoo xam ne ku ci indi boot ba mën cee ba mën cee dox ak ak ak lu may gi rëy rëy rëy lu nguur gi rëy rëy loolu nag kenn ku ne war naa war naa war naa jiital boobu ci mucc war naa jiital boobu ci mucc waaw bu la waxee boo ko séddee da lay andil mucc tey waaw loolu loolu la am lépp.